ñoo ngi ci port bu Ziguinchor fi nga xamante ne ay waxtu rek a des ngir mbattu jàmboñ mu daal di yegsi fii ci diwaanu Ziguinchor gannaaw bu mu toogee juróom-benn weer kenn gisu ko ndaxte mbas bi moo ko waral ci bërëb ya ñu gis ni ñoo ngi koy waajal bu baax a baax door nañu sax jaay ay billets ay euh, voyageurs ñuy jot a fekk ci bërëb yi jot nañu apprécier bu baax a baax li nga xamante ne mooy reprise navette maritime Dakar Ziguinchor. waaw ñu ngi ko rafetlu daal en tout cas lii moom euh, daanaka population bi lii lañ doon xaar waaw parce que voyage bi dafa métti bu dee dañuy jaar par Tamba vraiment loolu am na ñoo xam ne. si la ñu jaañu ne ah bu dee nii la ñoom daal du ñu demangum Dakar quoi dañuy xaarangum ba ñu ubbi frontière bi ah gannaaw nag euh, bato bi reprendre na ñu si gën a bëri si la ñu jóg ñu naan ah comme léegi bato bi dina dawaat léegi xëy na peut-être nañu jël bato bi ñu dem waaw pour ñu mën a euh, dem Dakar. waaw dafa li nga xamante ne dañuy yombalal suñu voyage jógee Ziguinchor dem ba Dakar ndaxte bu ñu war jël yoon bi yoon bi day sori te coono bi te distance bi tam dafa sori trop. ma ak prix bi tam muy foofu booy voyager par bateau da ngay dépenser euh, ça dépend tam si li ngay jël da ngay dépenser moins de prix bi. ci biir comme ci biti nemmeeku nañu respect des mesures barrières ñu jàpp ni lépp li jëm ci wàllum koom-koom ci biir port bi itam ñu ngi koy waajal bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci le voyageur xamal nañu ni biile reprise dina sukkaliwaat koom-koom bu nekk fii ci bët saalum réew mi. waaw ci li ma yaakaar ci li ma yaakaar parce que boo xoolee bu ñu naree jël oto. nar a jaar par Kolda Tamba day xaw a métti ci commerçant yi mais buñ naree jël bato bi moom yaakaar naa ne boobu moom moo leen di gën a arrangé quoi waaw te gëm naa ne ni que bato bi bu reprendre euh, njaay mi dina dina gën a dox. fii ci diwaanu Ziguinchor ñu ngi xaarandi bu baax a baax bato jàmmooñ bi nga xamante ne dina yegg si fii la ay waxtu fu mu toll nii askan wi rafetlu na ko ndaxte seen coono dina wàññeeku.